jongante relaxé la ñuy wax mbokk yi ci télévision Futur Média jongante boo xamante ne tey dama génn ci mbedd mi waxtaan ak askan wi waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir mais wuy ma yow man safuma la yow <laughs> non diggante yàlla rek wuy ma eh wuy ma eh wuy ma yow safuma yow. waxal yow yow laa wax kii safuma. <laughs> ak sëñ Saalum nga ko. <laughs> Eh, xam nga ni mbir mi safante la. na nga na de. ma ñaari monture yi foog ba am. bébé bébé yow yow. koo sa koo sa mais naka julli gi waaw fi nga wax sénégalais il faut passer julli gi. passé nañ ko si jàmm ak salaam. nga demoon sunu kër. passé ko famille bi waaw passé nañ ko si jàmm ak moom alhamdulilah. Ah. waaw eh, yow kaay feeñ nga da ngaa da ngaa teg xef foo foo tabaski bi. sunu biir kër ak sama. Eh, famille xef yi. xef sama waa famille laa ko passé waaw. Eh, an sa waaji kii bi. sama waajan. eh kaay yow yow foo passé suñu kër. enjoy no enjoy non non wax dëgg yàlla covid bi sonal nañ nga xale góor yi na ma yàlla jégal ak ñi ma ka war a wax am na si ñeen ñoo xam dañoo ñàkk jom gëj naa leen a dégg eh bu ñu ñëwaatee bañal eh, ku ci ñëwaat bañal dañuy lay de envoyé ma sa nga ne maa lànk bu wut ku ma defati <laughs> eh yéen a ngi enjoy mais takk leen masque yi mesure barrière yi ngeen respecté ko parce que feebar baa ngi ci biir réew mi te jogee ko fi surtout xale yu ndaw yi protéger mag yi mag yi protéger xale yi eh sama xel a ngi ci yow nag e wax ndeysaan ndeysaan e xaaral ma jënd jën ak soble ak yàpp ça va comment tu yaa ngi ci jàmm in ma xool la teel ma ma xool la teel ma ma xool ma daan xooli sama yaay dama daan xooli dama daan xooli sama yaay soble bu gudd bi nga koy xoolee wala bu gàtt bi. ah bu <laughs> mais maa ngi góorgóorlu. li yaakaar li yaakaar nga ne yaakaaroon nga ni munu munu ma ko. waaye nga nokkos ko rek boo pare voilà léegi euh, xaaral ma ma ma ma fomp. na nga def. maa tudd. Marème. lu tax tey mooy démb la ñu julli tey yéen ñëpp ngeen ñëw. waaw dañoo namoon liggéey bi rek. Uh-huh. liggéey bi naka la demee fii ak Covid bi ndax yéen a ngi yéen a ngi moytu. waaw koy respecté. jaay exactement. jën lay jaay. jën jën ban façon jën. lot sompat yëpp rek. di suivre làmb. làmb. Ah. kan mooy sa mbër. man moom Modou Lo xam nga ni dafa am combat moom ak Ama Baldé. ah la benn bàkku Modou Lo wala combat Modou. waaw may ma bàkku Modou Lo moom dina ma neex waaw. bu ñuy wax Ababacar Ababacar Mbaye. Modou mbay Mbaye Ababacar Mbaye balaa ñuy dem seeti Modou Lo mbokk yi moom laay may bàkku Modou Lo li ñuy def mooy damay gërëm sama sponsor yi. tàmbalee ko ci ki nga xamante ne nii moom mooy euh, l'écran di meew mi nga xamante ne mooy meew mi wóor meew mi neex meew mi baax ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy pack foot di ñi nga xamante ne jàpp nañu ci li nga xamante ne moom laay def. yu defar moutarde di defar vinaigre di defar lu nekk waaye nag du ma fàtte mukk ñi nga xamante ni mooy diwlin boobu nga xamante ni moom moom ñun bëgg muy Jador Jador ngay toggee. Jador dinaa moom ngay toggee waaw. moo gën ci diwlin yi. ñette ñetti sponsor yooyu laay àndal ci émission jongante ma leen di gërëm di leen sant di leen may ngeen seetaan publicité bu ñu ci noppee ñu may kii kan. Modou Lo bi rek. waaye Sigil waxal ak da doon ngénte démb de. Modou Lo bi doon ngénte démb de ñaare la. waaw bëgg naa yooyu. Ababacar Ababacar Mbaye Modou Lo ñu dem Massamba Kapi Bëñi Njogu Mbay weeru Kër Cheikh Tidiane Ba di noonu Adi Malick grand serigne de Dakar tey ñu lekk 3 minutes Mohamed Ahmed Lamine Samba 3 minutes net daanaka bëri nañu 3 minutes ñoom ñaar. diggante Modou Lo ak Eumeu Sène ñaar ñu xamante ñooy bëri ñaar ñu bëgg combat bi ñooy bëri ñaar jox cër ñooy bëri waaye di bëri teel drapeau nit ku rëy nit ku yàlla baaxal di Youssou maa jigéen du ay bii bés kenn du ko saax l'histoire retiendra bi noonu ñoom ñaar ñu ngi dugg ci quatrième minute bi ñoom ñaar Moustapha Gueye exactement daman tey baaraam ba tey Modou dóor na ama seen dóor na Modou teg tànk waaw dóor fayu dóor fayu bu dóor fayu ama dóor na Modou fayu na exactement à toi am indil ni koy waxee am indil. mais bu ko coono Modou calculé ko Modou il calcule. il tànk mankaane yi xool Eumeu Sène ay bët. su ko baax na ci ëpp ci da koy xool ci ay bët lu lu mën la woo. mu mën la koy la koy la koy woo nii. benn benn benn benn la. un deux surtout mel ni kuy dam yi aso jékki-jékki ñoom ñaar ñu ngi leewtoo. foo kenn dem. mënut a ñàkk. ko kenn dem waaye nous sommes comme nous sommes passionnés dañoo war a jël suñu temps wu ñaari bëri bëri ñu combat bu neex. ñu enjoy combat bi ñoo combat bi combat bi li ñu annoncé neex na. waaw dóor ma fayu dóor ma remise. dañu wane ñoom ñaar ku nekk bëgg na combat bëgg na bëri bëgg ñu bëri bëgg nañ xeex waaye xeex lañu gisagu gisaguñu bëri. dëgg la mais naa ni kenn ku ci nekk buntu ngay xool. waaw su ma wut loo tëboon soog ñu ëmbat seen. la ilaha illallah lu cay am. lu war nekk la pourtant Aliou da nga leen demandé pour ñu bëre. ah bon après cinq minutes presque de combat. nee na bëre leen sinon mu joxe avertissement verbal. arbitré combat bi. il est bon il bon il est jeune. c' est jeune. par rapport aux autres. l'avenir appartient aux jeunes. ou bien à la jeunesse. l'avenir appartient à la jeunesse. ndeysaan. am na ku defar Léopold Sédar Senghor in ay bis ay bi bés ñu ngi noonu ñoom ñaar di léewtoo Modou Lo dóor na di gauche am na solo Ama Sène Lo bi daf ko jam en avançant un pas ça c'est important man defe nit dafa war a nekk action réaction waaw mais ku ko dóor Ama Sène ba mu dóor ko ba génnaat mais Modou Lo mu ngi ne jàkk Ama Sène Ama Sène nag ne moom tamit mi ngi ne jàkk Moustapha Gueye bu mel tey jii Eumeu Sène ñëwul pour saax-saaxee mu ñëw pour teg ko ci ndax nit du fot ci ndab fotaat ci dëgg la waaye nag bis bu ñëwee recoupé nañu nag yaakaar naa ci la pexe yi war a génn mooy ne Modou Lo actuellement bëgg na contact waaw bëgg na contact bañu ko Modou Lo bañu contact ah Modou Lo daw contact est ce que dafa a xaar ba seet daw contact eh, eh ah, door na ci biir bi direct au am na solo Modou fayu la moom it gauche solo waaw mooy seen jàngatu lu bees quand même ah. mooy seen ay laaw lañ ko xamee woon. bien sûr combat plus désordonné. bien sûr mais det ci ci kanam jàngay det ci ci corps. ça c'est important. Ama Sène ñoom ñaar ñu ngi léewtoo. stade baa ne tekk ndeysaan. te nii da koy bàq. waay waay waay sax noppi nañu. ñëppay noppi. bu ñu bëree foog. soxal seen eh, jëmm ñaari picc bu ñuy bëree sax nga koo faral. koo faral yow laa koy laaj. man yow laa faral Moussa Faye. man laa Moussa faral ñu ah, ñaar ñu ngi leew too. Eumeu Sène Modou Lo ñu ngi leew too. Ba Modou Lo Eumeu Sène. roi des arènes la ñuy bëre. roi la ñu ko tuddee Moussa Faye Gueye. jigéen lay wuyoo. combat bi ndax du dem mi-temps. ragal nga ko. Eumeu ah, Sène a ngi abrégé combat bi. contact la la bëgg. Eumeu Sène ngi abrégé combat bi. kon nag la bëgg. Eumeu ngi abrégé combat bi. mais Modou Lo ngi ne di ko xool. dem nañu. daje nañu. tur na ko daan Modou Lo tur na Eumeu Sène mu daan. Modou Lo tur na Eumeu Sène mu daan. Modou Lo jël na roi des arènes. roi des arènes